tey nag dañ fi nek ci cadre projet bu ñu séq ak wa ministère de la santé direction de la prévention jité ko projet bi tay ci li ñu teunk moy ñu sensibiliser waxtaan ak population yi ci lu jëm ci vaccination de routine vaccination de routine moy ñak bi xalé yi di jël entre 0 ak 23 mois moy xalé bi door judd ba ba muy am ñaar fukki ñaar fukki wër ak ñett vaccination bobu nak dañu xol ne fim mu toll nii dafa soxé torop ci biir Sénégal xale yu bëri vacciné wuñu xale yu bëri commencé nañu vaccination te yeggali wuñ ko xale yu bëri seen yaay yi amaana xamuñu sax lan mooy vaccination surtout mais ci biir euh, sensibilisation boobu ñuy euh, topp ci programme élargique de vaccination ñu ngi ciy xoolaale tamit bépp cas boo xam ne paralysie xale la xale maanaam laago bu dab xale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 vraiment ñu santé la bu baax sunu acteurs yi mooy bajjan ak relais vraiment ñu am Pastef la ñu am engagement la te tamit li jëm ci vaccination vraiment ñu sant suñu borom population yi ànd na àndu na ak ñun pour que vraiment ñu ñu si am très très souvent ay ay ndam ci ci ci ci fànn boobu. de ay équipe la équipe bu ne ñaari nit benn scout benn acteur ñu dugg ci kër yi ñu daan fukki fan te tamit dañuy dañuy am ay équipe mobile de vaccination bu ñu gisee xale bu ñu war vacciner rek ñu orienté ko ñu vacciner ko. je crois que lundi tey la commencé par formation ñu ñu tàggat ñi dem ci terrain bi mais activité bi ci boppam je crois que lundi incha allah lay commencé. parce que xam nga euh, dañ ne boo amee téeméeri xale yoo xam ne seen at mu ngi toll ci diggante. zéro ak vingt mois fexel ba quatre vingt dix yi nga vacciné leen te ñun vraiment ñuy sant yàlla loolu ñu ngi ciy taxaw bu baax a baax.